léegi parti socialiste 2012 ngeen gëj a présenté wu à une élection 2019 d'ailleurs fa la parti socialiste implosé parce que ñoom xalifa ak ñoom Barthélémy ak ñoom Bamba Fall dañoo jàppoon ne da ngeen war a am candidat yow ak ñoom Aminata Mbengue ak ñoom Serigne Mbaye Thiam ak le leader du parti socialiste de l'époque ngeen jàpp ne. dangeen nekk dans une majorité la cohérence mooy ngeen jàppale le candidat de la majorité muy président de la République ñu ne dañuy différer le la candidature à 2024 ñëw fu ñu ko waxee loolu. yéen à l'époque. loolu ngeen ko waxee fan lañ <laughs> faire dire aussi parce que ça c'est l'histoire c'est ainsi que vous nous inventez des ñu ne dañuy gunge Macky Sall ba deux mille vingt quatre. fan fan la ñu waxee deux mille vingt quatre on verra loolu ngeen waxoon. fan la ñu ko bind ñu ñëw ma ne loolu ngeen waxoon ñu ñëw deux mille vingt ngeen jàppale candidat bi nga xam ne moom la Macky la euh, teg muy muy Amadou Ba donc douze ans buñ ci yokkaatee cinq dix sept ans pendant dix sept ans pendant lesquels parti socialiste damul compétir. aujourd'hui da ngay ni parti bi il a géré ce pays 40 ans. d' accord kon ñeneen ñi pendant 40 ans compétir fii demuñu. <laughs> d' accord demul <laughs> mais mais mais mais kañ ngeen di arrêté euh, dynamique de compagnonnage langaamu bi ngeen jëlaat seen destin en. en même na euh, le parti socialiste dirigeait ce pays j' étais pas membre actif de ce parti à l'époque euh, pour le pour pour mu ñàkk nguur gi nit ñi dañu lëkkaloo dañu def coalition pour mën koo daan. d' accord nañ Abdoulaye Wade bii defoon coalition pour mën nañoo daan coalition moo ko fi jëlee kon jàpp nga ni tey boo naan parti socialiste demal c' à dire en réalité yow <laughs> da ngaa bëgg parfois sànq parti bi dañu nekk dans des aires de grands ensembles surtout que ni nga ko waxee bu dee ay pàcc sa biir dañu dem donc ñooñu dañu bokk ci li wàññi sa doole. parce que am naa kilifa bu doon wax ni doole gi ngay yóbbu ci penc bi sa kër nga koy jële kon doole kër googu bu ñu ko wàññee en même temps nga ne bul nekk ci coalition loolu mooy da nga bëgg que nous soyons nous dans des comment dire dans des considérations un peu philosophiques euh, euh, euh, li ngeen bastion yi ngeen bastion électoraux yi ngeen doon pro yi ngeen doon contrôler yu bari perte ngeen ko le parti est en perte de vitesse mais ci ay coalition ah ci ay coalition mais coalition bi daf leen ah, daf leen phagocyté non dama ne ce coalition la fagos mais coalition mooy un ensemble yow da nga ne bennoo një langaam bennoo ñoo créé ñun du ñu invité de bennoo Benno Bokk Yaakaar nous sommes membres fondateurs de Benno Bokk Yaakaar. d'accord on est donc kuréel la kër la bu ñu fondé ñi ngay wax ni dañ ñoo bàyyi bu ñuy fonde kër gi ñu ngi woon ci biir. Idrissa Seck fait partie des dama ne man samay waa parti samay waa parti laay wax samay laay wax parce que ñoom nga fi lim dama ne bi ñuy. tabax bi ñuy constituer benn Bokk Yaakaar ñu ngi ci kër gi ñoo constituer ñoo yéen da ngeen fàttali ni parti socialiste ci ay gëm-gëmam dem nañ fi suu wàdd ay élections législatives ñu boycotté ko. génn ci génn ci à zéro député ndax ay suñuy gëm-gëm parce que jàpp nañ lii mooy yoon bi baax pour Sénégal ñu bañ ko kon aujourd'hui il faut pas dire di compter naan nangami at parti bi amul candidat boppam. partie bi moo war a organiser wu loolu d'accord naa ceeg yow gën a defaraat ay base gën a gën a gën a gën a euh, en tout cas tegaat ay nitam fi ñu war a ne et cetera euh, préparé wu loolu moom ànd naa ceeg yow parce que suñu parti quand même sa raison d'être mooy euh, vendre son projet de société le défendre et le faire émerger pour jiita réew mi loolu mooy suñu projet mais Benno Bokk Yaakaar parti feneen ku ñëwee da nga am le même projet ah moo nañu jàpp ne il faut ñu lëkkaloo constituer cette force et cette force elle n'est pas négligeable parce que cette mais force mais kañ ngeen di jëlaat indépendance attendez lan mooy indépendance nous sommes nous sommes indépendants ma ne suñu kër la ñu ne vous êtes indépendant xam nga yow yow yow sa genre mooy nga ñëw ci kër jàmbur <laughs> nga naan nga naan doomu jàmbur yi lu ngeen fii def lu ngeen génn seen seen kër dem feneen loolu ñun suñu kër la ñu ne nous ne pas des invités Benno Bokk Yaakaar et notre notre coalition Et on a vu cette coalition construire ce pays de façon admirable, ce que les gens ne veulent pas voir, en tout cas certains. Ce, ce, ce Benno Bokekar, son bilan, il est élogieux. On ne veut pas en discuter, on ne veut pas bah D'accord, mais mais, mais, mais, y a mais, un besoin, mais la politique, c'est pour ça. Il y a pas. un besoin de Est-ce que la politique, c'est pour des problèmes d'aura personnelle Oui, mais vous devez renouveler cette instance war ngeen euh, mettre à compétition le poste de secretaire général Aminata <laughs> Mbengue Ndiaye moi je l'adore beaucoup mais elle elle elle elle est entre elle, elle continue euh, un, euh, un, euh, un, mandat war ngeen am candidat yow mi 2029 war nga mën a. présenté wu dañoo toll dañoo toll présenté wu. sax 2000 nu mu tudd vingt cinq wala. non mais je veux dire un parti emblématique mënul continuer rek. mais euh, nekk ci benn. coalition moi boo xam ne vous êtes la la la la la deuxième roue de la la la troisième roue de la de la charrette. suñu kër ah. ah suñu kër fan mooy seen kër. Benno Bokk Yaakaar mais Yaakaar euh, l'épicentre Benno Bokk Yaakaar. tey bu ñu parti social tey bu ñu tànnoon un membre pour mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ce discours là da dem tenir ko waa wala nga tenir ko AFP. loolu mënul nekk politiquement mënul nekk. mënul nekk pour Benno Bokk Yaakaar. bi nga ah. xam ne APR mooy épicentre bi mu bàyyi fii APR dem di tànn. candidat parti socialiste non mënul nekk. mais que le PS se batte parce qu'on en a les ressources. on en a l'organisation pour être l'épicentre. justement non pour être l'épicentre c'est ça le regret. que collectivité locale yi ngeen doon yi ngeen doon contrôler sax bi ñu demee ci élection yi dañ dindi seen nit ñi néewal leen doole ñu dóor leen. dama ne seen bastion yu bari perte ngeen ko. soxna si yow da ngay da ngay bëgg a ils sont pas généreux de. ah da ngeen di jugé waa APR léegi. APR ils n'ont pas été généreux avec PIT tous leurs alliés là. est-ce que jël nañ sama commune sama loxo. ah nga ne. est-ce jël nañ sama commune sama loxo. jëluñu ko ci sa loxo. parce que c'est politique faits politiques. dafa ndànk rek jëluñu ko ci sa loxo ah, parce dama doon dama doon raisonné. non xam nga lu tax jëluñu ko sa loxo amuñu ah, candidat bu ñu teg. waaye bu ñu amoon bu ñu amoon ku ñu teg ku la mën a dóor dañ koy def bàyyi mu nekk mu créer tendance. dóor la merci merci c'est la politique. c'est la politique nous sommes d'abord des partis indépendants et nous sommes en coalition coalition politique aujourd'hui même coalition de gouvernement euh, gox boo ne politique mooy tax ñu dénk la ko wala duñ la ko dénk man loolu laa gëm exemple ma la jox c'est parce que au, au, au plateau il y, a des responsables APR de grands responsables hmm, euh, kii ñu taxawuñu amuñu base taxawuñu yow ce la taxawuñu ce jugement la <laughs> yaa xam essayé sa daa daw. ce ce la mais dama ne ils ont des responsables. yooyu bu ñu amoon euh, la la prééminence. coalition lañ ne pour que la coalition gagne dañ mën naa Alioune dandul gars yi taxaw parce que ñii ñoo mën a gañaloo. mais dañoo amul dañoo amul kuñ la teg kuñ la dendale. mais mo donc yow wax nga lépp. kon feneen bu ñu amee koo xam ne ah. mën nañ ko teg à la place mu gagné. loolu la ñuy natt naa nag bu ñu tegee keneen te gañewul ñu xam ne erreur def nañ ko. coaching il y en dans beaucoup de communes. et d'ailleurs bi nga pertee ci législative yi. Oui. ils ont voulu mettre votre tête à prix. qui a voulu la mettre. Euh, gars yi waa APR commencé naan qui perd qui qui qui perd s'en va. mais s'en va d'où <laughs> le gouvernement. non j'ai pas de problème de ce point de vue là xam nga gouvernement non <laughs> j'ai pas de problème de ce point de vue man dégguma loolu pour ne pas critiquer personne dégguma loolu man dégguma ko. j'ai pas entendu ce débat là je je n'ai pas entendu parce xam nga tu xam nga moom moo ko déggoo. du parti socialiste euh, Plateau c'est un bastion socialiste. Plateau. Euh, mais je te signale que c'est le PDS qui le dirigeait. waaw c'est la politique. waaw d'accord mais des trois maires euh, qu'il y a eu. Oui. Plateau les deux sont socialistes. oui mais. Ah. les deux sont socialistes le grand Serigne a moom moo moo installé cette commune d'arrondissement la plupart des textes moo ko def d'ailleurs de sous son magistère. après non xam moo tax gars bu ñuy wax fii dañuy fàtte démb ko le PDS bi ñu mais qu'est-ce qu'ils fait euh, ils ont voilà ils ont mis une délégation spéciale et cetera euh, Abdoulaye Makhtar n'a pas été battu sur les élections loolu la woon lu dëgg bon. moo tax ma ne la c'est un bastion socialiste. non attends mais après loolu man ñëw naa fa def naa comme ni nga ko sa présentation def naa les mandats que je fais mais si politiquement taxawuma. mais c'est quelqu'un d'autre qui va et la coalition s'il estime aujourd'hui qu'on a am nañ mbër boo xam ne moo ëppal chance coalition bi gagné bu nekkoon PS sax dañu mën naan Alioune Ndoye sa camarade bii la ñu war a teg. te bu ñu ko defoon di nangu. mais day fekk mu nekk day xam nga politique nag c'est un rapport de force ah. yow da nga foog ne ñi ñuy abal dañuy dañuy d'accord abal ñu mais dañuy xam ni euh, c'est ça la réalité donc mois ce que je dans les six cent une xaw ma collectivité territoriale là. ñun dañu war a taxaw en tant que parti dëgëralaat suñu bopp ci organisation parce que li ma gëm dans le Benno moo tax toujours dama naan sama kër la la force de Benno c'est l'addition de nos différentes forces si chaque parti man je n'en veux à parti qui se bat pour être fort parce que c'est en se battant pour être fort qu'il renforce ma coalition donc je demande à l'ensemble des partis membre mais ñuy xeex pour être davantage plus fort C'est cette addition-là qui fait aujourd'hui la que Benno nekk cette force cette machine électorale bi nga xam ne gars yi dañu ko xeeb mais bu dul woon euh, dog-dog yi nous on était sûr